que mu euh, désigné ñu teg ci tuuti déclaration de candidature yi tàmbali euh, di di di di génn ci seen euh, ay ran ñu si ëpp wala ñëpp sax xëy na APR lañ bokk parce que dégg ñu benn benn allié parce que yow mënoon nga déposer sa candidature sa déclaration comme xëy na un responsable du PS wala de l'AFP ma yéen defu leen ko waa APR ci seen biir ñoom ñoo ko def loolee noo koy noo ko noo koy noo koy gisee manque de discipline la ay ambition dévoilée la wala c'est le président qui nga xam ne mooy son autorité jamono ji non le président de la République ne peut pas perdre autorité le président de la République reste président jusqu'au 2 avril 2024 mhm. loolu constitution bi moo ko jox cër boobu n'est-ce pas yi ñoo ko fal également euh, waaye nag ambition loolu duñ tere kenn am ambition képp ku nga xam ne am nga ambition pour jiite réew mi loolu aayul nga wax ne man je suis candidat à la candidature n'est-ce pas. Mhm. donc il faut mu am ñu nga xam ne ay candidats leen à la candidature. donc donc maintenant si candidat à la candidature yooyu. c'est pour le choix final mais pas pour euh, maintenant. waaw mais carte blanche bi bien sûr c'est pour le choix final. ok mais euh, yow mun nga ne bëgg na keneen ne bëgg na keneen aussi ne bëgg na maintenant président de la république un moo ëpp ñëpp information. Mhm. deuxièmement moom moo gën a xam ñëpp ñu ko wër. troisièmement information si ku nekk. ku am sens pour gagner moom dina ko xam mhm. n'est-ce donc euh, ñun gëm neen ko wóolu neen ko neen ko may incha allahu rabbi gëm ne ne candidat bu ñu tànnal su soowee yàlla moom wax na ko moom si jëm boppam dina wàcc sur le terrain accompagner ko ba nga xam ne dineen gagner élection yi mais apparemment il a des pour choisir ça fait six semaines non il n'a pas de difficulté pour choisir comment ça a une difficulté pour choisir xam nga xam nga xam nga ba tey waxuñ ne délai sangam président la république ñun waxuñ ko ne délai sangam nga ñu war a jox candidat loolu amul fekkoon ne dañ ne délai sangam nga ñu war a jox war a euh, désigner bi weesu c'est la ñu naan dafa am difficulté pour choisir mhm. mais amul fenn fu nga xam ne tënk neen ko constitution tënk ko loi tënk ko coalition bi tënku ko. donc mais pourquoi nit ñi pourquoi pourquoi nit ñi yàkkamti. mais am na lu muy signifié le fait que amugu leen candidat ba tey boo xam ne désigné nañ ko. si soit le problème est réglé depuis très longtemps. léegi euh, tout le monde se dit c'est ma chance il faut la saisir. bon man yaakaar naa ne président de la république Macky démarche adopté nii moom mooy la meilleure démarche ñëpp xam nañ ne jamono jii nee na du candidat yow gis nga ne ñëpp nee neen candidat leen mhm. su ko waxoon dès le début konoon est-ce que pour nit ñi liggéey correctement sax dina difficile ku nekk da ngay jéem a dem pour ne da ngay dem dagaan baatu askan wi te lu ëpp solo mhm. lu tax ñu fal ko mooy lan pour liggéey Sénégalais yi moom loolu la jiital looloo tax mu toog ba jamono ji wax dëgg yàlla soog a wax ne moom du candidat te su loolu mooy am su soobee yàlla incha mm-hmm. allah. mais que candidat bu nga xam ne moom la ñu proposé day doon candidat consensuel maintenant nag cela ne veut pas dire l'unanimité mm-hmm. je le répète encore une fois. mais bu ñu nee consensus mooy que eh, ñëpp ñëpp ñëpp nangu nañ. waxtaan ba ñëpp d'accord déedéet consensus consensus loolu français la. Mm-hmm. moom la ñuy wax absence d'opposition ferme. dama lay jox benn exemple. au niveau international su ma lay wax wàllum normalisation fekkee ne soixante quinze pour cent des pays votants. vote pour la norme la norme passe maanaam téeméer boo jël ñaar fukk ak euh, juróom. juróom-ñaar fukk ak juróom n'est-ce pas. Mhm. fii également. loolu mooy consensus. mooy majorité maintenant unanimité. Mhm. unanimité moom mooy 100 pour cent. unanimité nag loolu mënul am. man xëy na na bokkuñu compréhension du consensus ah parce que consensus mooy que ne ñëpp kenn wanewul opposition ñëpp d'accord nañ ci ànd nañ moom lool la consensus moom mooy l'absence d'opposition ferme unanimité. moom mooy absence d'opposition moom unanimité nag. moom mooy ñëpp. Mhm. dama ne absence d' position ferme. donc on peut s'attendre à ce que am ñoo xam ne duñ ci d' mais loolu du ñàkk. ñooñu nag est ce que duñ nekk problème. non mu nekk problème ñu day doon minorité. ah day doon minorité bien sûr parce que ñun coalition Benno Bokk Yaakaar ñun ñoo ànd ne président ñun ñoo la jox carte blanche. Mhm. koo ñu tàndal ñu ànd k moom jàppale ko te bu ñu fàtte ne. président de la république kese dafa am benn coefficient électoral. ça c'est vrai ku mu àndal nga xam ne ku mu àndal. Mhm. yow mii su la tànnoon ñun ñii ànd ak yow ak moom wax dëgg yàlla ëllëg nga doon président la république. tey ma samp sama candidat à la candidature bokk. waaw su la tànnee su boobaa ñu jàppale la. <laughs> Ah, Ibrahima euh, Souleymane plutôt fi ma fi ma bëggoon a ñëw mooy tey jii nii am na ay nit ñu dégg ñu wax euh, ñoo xam ne fas yéene wu ñu dellu ginnaaw. Euh, exemple bi may joxe mooy euh, le ministre de l' agriculture Aly Ngouille Ndiaye il maintient nee na sa candidature kooku est-ce que nar na poser problème ku ci mel ne Mame Boye Diao aussi il persiste et signe euh, Boun Abdallah fan yi passé gis nga ko nee ngeen jox ko brassard bi mu jiite équipe bi Amadou Ba waxul dara mais on sait tous qu'il est en train de manœuvrer Abdoulaye Daouda Diallo aussi fan yi bien yéen a ngi gis ces différents par par à travers ces différents canaux yi muy jaar ci réseaux sociaux mi ngi def benn nu ñu ko waxee sax mi ngi beesalaat ay mbiram donc tey jii nii ñooñu noonu kuñ ci jël kuñ ci jëlul bokk est-ce que narul nekk un problème sur la dans la mesure où ku ci nekk am na mbooloo moo xam ne mi ngi mi ngi sa ginnaaw. mais ñooñu ñëpp bu ñu fàttee ne également yenn mbooloo yu nga xam ne moom la ñu bëggoo mbooloo Benno Bokk Yaakaar ñu si bëri président de la république moo tax ñu topp leen balaa ñuy xam ne. Mhm. wax dëgg yàlla président ku mu tànn kooku mooy jël ndam li na président tànn ñoom ñu beddeeku dem su boobaa dinañ am mbetteel lool. Hmm, jàpp na dañu nar a dem def semaine à part du ñu am dara. ah yàlla xam. wax hmm. dëgg yàlla man du ma yàlla mais gëm naa ne président de la république am na coefficient bu nga xam ne ñoom moom leen gëm. Hmm. am na ñu nga xam ne ñu ngi leen topp si ñoom ñu nga xam ne président ay militant président de la république Macky Sall leen. te président la ñu noyyee. président ku mu joxoñ kooku la ñu àndal. loolu aussi buñ ko fàttee mais maintenant nag mënuñ empêcher nit am ambition. wax dëgg yàlla loolu c'est tout à fait légitime. ñoom am nañ seeni i am nañ seen i kii seen i lu tax ñu ñu def ko. Mhm. loolu kenn du leen ko bañal te man loolu vraiment duma si ŋàññi kenn. Mhm. wax dëgg yàlla mais man en ce qui me concerne en ce qui concerne notre parti ñun su soobee yàlla président de la république Macky Sall ku mu tànn rek ñun kooku la ñu àndal. parce que damay fàttali ni. yow mënoo ne yow. président la république jox nga ko carte blanche ba pare ngay wëlbateku comme man mi dem ñu may gis ak beneen candidat mais loolu yanuwul maanaa beneen candidat à la candidature loolu yenuwul maanaam. Mhm. gis nga nit ki soo ko wóoloo wax dëgg yàlla su fekkee ne yow nga ne jox nga ko carte blanche da nga war tey nga xaar président de la république ku mu tànn rek wax dëgg yàlla man su la tànnoon yow wala mu tànn keneen incha allahu rabi ñun kooku la ñu àndal. donc li xew yi da koy dénoncer mais jamono ji yu bëri jamono ji man du ma nangu ay candidats yi am na ñu may naan bëgg naa ñu toog ñu waxtaan mais man. ah oui au sein man man dama ne. am na ñu nga xam ne dañ lay naan Souleymane bëgg nañ ñu waxtaan. nga jàppale leen mais man dama waxtaanul ak kenn. <laughs> loolu c'est clair man Souleymane Ndiaye waxtaanuma ak ma Samba waxtaanuma ak ma Demba président de la république Macky Sall moom kese moom lay dégg. Mhm. ku mu tànn su soobee yàlla man dinaa ànd ak yow liggéey ak yow te incha allah rabi ñun ñooy jël ndam.